jaajëfatee jaajëfatee sama gaay mr Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dañu ñëw dafa leen benn vidéo ci li ñu gis mu jaaxal Sénégal yépp muy ne Barthélemy Diaz dañ ko japp lu tax ñu koy jàpp parce que dafa génn ngir doxantu comme Diouf sar nu mu doon doxantoo ken japp ko Barthélemy génn né day doxantu ay policiers vous ko gars, on va vous faire une vidéo sur l'arrestation arbitraire de Barthélemy Gaz par les forces de l'ordre pour une simple banale de promenade qu'il qualifie de promenade politique. Barthélémy Gaz brutalisé. Un Barthélémy Gaz embarqué dans la fourgonnette de la police comme un vulgaire malfrat. Barthélémy, il n'est pas n'importe qui, c'est le maire de Mermoz gars vraiment Sénégal tay dañoy yow gis information buñu jaxal Macky Sall wax deug dafa melni ku ñak sa góom ñëpp waxoon nañu ne Macky Sall dafa ñak sa mais liñu gis moy l'indignation généralisée l'indignation générale sur les réseaux sociaux mooy né bo demee ci internet bi nit ñëpp ngi koy naqarlu de Mr. Shake à Fatoumata Danso en passant par Sénégal Sene News ñëpp ñëpp Dakar Instant Faut tourner. ñu ngi wax ci Barthélémy Dias ndeysaan defal ko ay vidéo defal ko ay live Li nak vraiment publicité la pour Barthélémy Dias ñoom dañu yaakaaroon ne dox bi def koy indil ay nit wala dox dox bi muy dox promenade bi muy def dafay tax nit ñi xam ko waye Macky Sall dafa melni ne Barthélémy lay liggéeyal xamna ni ne Diouf Sarr fi mu toog ñu ngi yuuxu di wax ay waay waral ngeen ko bàyyi ndax man gëm naa ne bu ñu bàyyi woon Barthélemy Diaz mu dox kenn du du ci wax man de du ma ci def vidéo Barthélemy Diaz dox na rek mi ngi ci mbedd bi du ma yeewu di ma ci di ci def vidéo waaye xeex yi mooy tax journaliste yi di ñëw xeex yi parce que journaliste yi yàkkamte ñu te gis nañu policiers yi respecté wuñu kenn ils ont brutalisé des journalistes qui pour se défendre ont montré leur carte professionnelle mais Barthélemy Diaz ñu gis ko commissaire bi dar ko mel ne kuy samp ndëndëm waaw commissaire bi vraiment sës ko rëkk beneen commissaire beneen policier ñëw nekk ci ginnaawam ñu jàpp ko di ko brutaliser Cheikh Gueye moom sax nee wax na ba wax ay mbéj xanaa sax ñu ñu mbéj Barthélemy <coughs> vraiment li ñu gis daf ñoo jaaxal ba pare ñu jàpp ko yóbbu ko polis jëppal Quand on l'a amené à la police de Djepol, mais bien entendu, les fans, les inconditionnels de Barthes ont encerclé la police et exigé pour exiger, n'est-ce pas, la libération. Ils ont empêché une voiture dont ils soupçonnaient que Barthélemy était à l'intérieur, qu'ils soupçonnaient que Barthélemy était à l'intérieur. Ils ont encerclé cette voiture pour l'empêcher d'avancer. La police a largué des grenades lakk yu ma jëm policiers yi temps yi seen yaram dafa tàng man wax naa policiers dañ leen xabtal dañ leen tiital li amoon mars loolu la leen kii wax du am parce qu'on a vu une police molle lors des des événements de mars des forces de l'ordre sous-équipées pour remédier à ça Macky Sall nous avait dit li fi amoon doot fi amaat moo tax mu dem jëndi ay grenade jënd ay ay ay ay pistolet jënd ay char jënd ay blindé jëndal leen ay yëre euh, euh, ninja jël Samba Boy des nervis de Grand Chemin il les a incorporés dans la gendarmerie à tout à ce qu'il paraît légui nak motax tax yi tamit dañ leen jox ay ordre gis nga kuñ ci wax jappal nga nek fa di yox yi bu boba dañ lay japp mën nañ la sax dàq wala buñ la dàqul mën nañ la wàññi sa salaire wala buñu ñu sa salaire ñu affecté la <coughs> Kédougou wala Matam policier dafa mel dañuy jëful waaw légui li ci doy waar li ci doy waar mooy ci ci ben semaine Barthélemy Dias genn na ñaari yoon daal di yëngal réew mi mok Sonko ñoo waron genn waye Sonko moy du sen morom xamna Macky Sall dafa ragalon ni Sonko day genn parce que Macky Sall tapette le buqat la pour moom yaakaar na ne Barthélemy Dias bu génnee xale yi génn rek dañ koy fekk Mermoz daal di ko jàpp wala nguuram yàqu Macky Sall tapet la tapet la moo tax lu yëngatu rek ku sëqat rek mu ni policier yi génn leen te xamuñu ne fi mu nekk sénégalais yi dañoo maar boo dégloo émission Fatoumata Danso ñiy woote vraiment da ngay da ngay da ngay da ngay xam ne sénégalais fi mu nekk dañoo dañoo dañoo maar dañoo sonn ci makki Sall nit koo xam ne am na ñoo xam ne dañ ne dafa soxor xol bi moo ñuul yàgg naa leen ko wax koo xam ne dafa iñaane sénégalais iñaane sénégal moom li mu am ci ay milliards doy ko waaye dafa bëgg taal sénégal Doudou Wade sax wax na ko Doudou Wade bu PDS nee na Macky Sall bu munul am troisième mandat day taal sénégal loolu nag mooy soxor loolu nag dafa yomb rek Doudou Wade nga koy wax wax ko père Ablaye Wade wax ko Karim Wade comme sax ñu jëlee ko fii waaye yéen yéen a dooleel Macky Sall di def ay protocole de Qatar ak yu ma xamul bu ngeen xamee ne Macky Sall baaxul ci Sénégal lem lemmal jeex na na ñëpp dal ci kawam wax ko ne du eggali troisième mandat Sonko comprendre na loolu Ousmane Sonko a compris ça parce que la dernière correspondance correspondance le dernier communiqué qu'il a sorti Ousmane Sonko nous dit que la victoire n'est pas loin inshallah légui nous ñu jëlé fi ce régime de tous les mots nous ñu les leen fi vraiment euh, am na ñoo xam ne sax dañ ñëwoon Mister Shake un live

Euh, yeewu askan bi de Barth de Sonko d'en découdre avec Macky Sall même qui sax wax na ko ah, sama ancien professeur ndeysaan Cheikh Gueye wax na ko moo ma moo ma jàngal euh, professeur science naturelle bi ñu naa waaw ba may def troisième euh, BFM wax na ko c'est le temps de l'action wax ji bëri na léegi yàmbar loo parce que nee naa leen Macky Sall le premier décembre du woo du woo Diaz ndax yow ñamewul sax Sonko ak Barthélemy Dias doxantu kon du len woo le premier décembre tapette la surtout bu nek Dakar du bëgg dara yëngatu instant bi mi ngi Dakar légui ñom Sonko ño wara genn génn na dimanche dafa am ben meeting bu ngand bu ñi organiser loolu lañ bëggoon sax def mo taxoon ñu genn Macky Sall bëgg leen ko xañ ñom Sonko il faut ñu genn ci terrain bu pour wax ko ne duñ la may Matam duñ la may Saint-Louis duñ la may dara ben xop ben carte voté Macky Sall doo sac suñu élection dinañ la gagné Dakar à 60 pour cent wala lu ko ëpp bu sàccee élection yi wala mun a day jéem a daq élection yi parce que fi mu nekk Antoine Diome nee na ne préfet yëpp dem ci tribunaux yi ngir yéexal ah bokk yeewu askan comme ça ñu mën a dàq élection yi loolu duñ ko nangu élection bu amul nit ñi dinañu génn dinañu yëngal dinañu fexe ba Macky Sall delloo ñu ci réew parce que Macky Sall dafa repp Macky Sall buggul eggali

caxat ci suñu géej waxuñu dara suñu jeen ngeen joxe ko suñu pétrole ngeen naan ko jaay ko son nañ son nañ ci loolu yëpp waxuñu dara léegi nag ngeen ne da ngeen fiy toog ba 2035 te toog bi li mooy lan doo leen bokk Matam doo leen bokk jurbel doo leen bokk fii doo leen bokk fa sàcc élection yi ñun dañuy bokk te élection yi doo leen ko sàcc il faut que ñëpp tijji seen bët il faut que ñëpp tijji seen président Sonko nag ñu ngi koy gërëm parce que moom moo fexe ba élection am

dinaa ci def live ñu gën a wax dégg naa nag ñu ne bàyyi nañ Bart mais loolu wóorugul mais bu ñu ko bàyyi itam du tere combat bi day continuer seule la lutte libère vive le Sénégal vive le président Sonko jaajëf merci